Still now, I actually support that. Mm -hmm. The mm-hmm. Ministry of Tourism and Culture, I believe it need to be separated. Yes, tourism and culture. Let tourism stand alone and culture also, you know, stand alone so that at least the artists can actually enjoy what they need to. Thank you so much. Eh, macha allah eh, ki nga xamante ne moom mooy Black Queen nga dégg ngeen kàddu yi nga xamante ne nii eh, moom itamit loolu la fi sànni dafa mel ni ki daanaka waxtu bi xoj nañu. Mhm. waaye balaa ñuy dem dañuy jël kàddu gi delloowaat ko ki nga xamante ne moom mooy Paamudu mhm. mu tàggatoo waaye tamit mu wax ñu li nga xamante ne nii moom moo nekk plans of his future. waaw jërëjëf ah, ah, lu may wax rek mooy ne ñi ngi lañ suñ film bi. ñu ngi koy launch on the 24th of March. my birthday. yeah Alliance sa birthday bi. ñu ngi ko Alliance ah, di sant di gërëm Alliance tam. because ñoom fu ñu nekk rek réew mu ñu nekk dañuy soxali cosaan ak culture. so ñu ngi leen di gërëm di leen sant si loolu. ba pare di wax Gambien si rek ñu ñëw ah ñun tam yoon lañu am. Mhm. yaa ngi dégg ñun tam bëgg nañ suñ film si muy dem fu sori. su ko defee ñi ñuy gis fu kawe. ñu ne ah lii de moom Gambien si ñoo ko liggéey gis na ne suñ musique bi mu ngay dem uh-huh. gis na ne suñ football si ñu ngay dem uh-huh. waaw kon nag suñ film industrie bi nañuy jàppale ñu tam mu dem yaa ngi dégg uh-huh. am nañ lu bëri nag ñu ngi koy def waaw ku nga xamante ni am nga talent pere ngaa dugg si film bi soo ñëwee ñu defar la waaw ku ko bugg nag la wax de ku am passion bi ndegte dafa am façon yi acteurs yii keneen ki dafa ñëw pour feeñ tele ñi gis ko benn film su ko defee ñi gis ko rek jeex na amaana suy dox si mbedd bi te soo ko ooyee mu nii laa ñetti baaraam la laa fa <laughs> yaa ngi dégg keneen ki dafa ñëw pour yundoo pour xaalis su fa gisutee xaalis mu dem waaye bu si gën mooy koo xam ne ni pason la su amee xaalis su amutee xaalis kooku mu ngi fa si am passion. mooy ak bëgg gëm-gëm ak bëgg-bëgg. mooy doomu aadama yi looy def soo si boolee gëm ak bëgg-bëgg. Mm-hmm. mun nga si sori. kon nag ku nga xamante ni bëgg naa doon fii makers as well ñu ngi lay oo to Gamstar Movie Production mën nga ñëw follow suñu Facebook page bi su ko defee ñun dinañ la former defar la. ba nga xamante ni di nga mën a fii si screen. jërëjëf joxewaat ko Facebook bi. Gamstars movie production. Gamstar movie production waaw. Gamstar movie production. waaw indi Gambia. Gamstar movie production. Hmm. dem leen kenn taayit ko dañ ko am ci Facebook bi ku bëgg a join bëgg a nekk film makers bëgg a nekk actor bëgg a am bëgg. wala moo filmin uh-huh. dama ngeen gisante Pa Modou. Uh-huh. Thiam Babal Demba Thiam Bala Maysa bi nga xamante ne borom ngalam borom wurus. Uh-huh. yow dawuloo mbaal diplôme nga ko tontoo macha allah. say morom jafe nañ ci réew mi ndax li nga wax ne dégg neex naa dégg mhm. dañuy ñaan yàlla rek ñun artistes yi gisuñ suñu bopp dañ koo wax nag te dee ñun artistes yi amuñ ministre yi ñun gisuñ suñu bopp ci dara covid bi passé rek moo la woon ne artistes kenn joxu leen bu tuut ñu toog bi lañ play am si njaboot am ñoom bu ñu yeewoo laaj la doo am fenn foo dem performer sakantuma foo pratiquer fii amul fenn foo dem jàngal xale yi aar te aar industrie la industrie boo xamante ne soo sa fay génn. xam nga ñaata artistes ñoo yore seen i réew. ñu ne artiste tàngam ngay ñëw rek réew mi neex bi ko soo mu ngi sponsor réew ma nañ leen jàppale gars yi jàppale artistes yi filmmakers yeeg ñiy woy ñiy produire film ñiy tëgg ak fecc ñëpp culture dafa war a dox ci Gambie li koy doxal nag ñu am seen ministre on ministre yi. ah kon nag sama gars yi noonu la mbir mi demee daanaka waxtu bi xaj nañu ki nga xamante ne moom mooy Pa Modou tey moom lañ dalaloon fii si suñu bi. Euh, mu nekk xale bu góor bu am jom euh, wax fi waxtaan wax waxtaan yu mucc ayib euh, dégg ngeen message yi nga xamante ne nii tamit moom la lancé ñu ngi ñaan ñi nga xamante ne ñoom ñu amee arts san culture ñu gëstu leen ñoom tamit ndax ci mbir mi lañ bokk dañ leen bàyyi ginnaaw bu baax a baax te ñoom wax dëgg yàlla bëgg nañoo gis seen bopp ci mbiri ndax ci mbiri lañ bokk lii nag lañ leen amaloon tey waxtu bi xoj nañu duñ def rek lu mooy bàyyee ki nga xamante ne moom mooy buur géwél to the next guest. Pa Modou Thiam jërëjëf